yi mu ngi ci làmb ne gadd hmm. te loolu itam defe naa làmb bañu ko hmm. doon tey wax la muy diggante lo Franc ak Eumeu Sène parce que loolu mënu mën a cee bañ a laaj en tant président des ménages hmm. coow la bëri dëkkante ba Eumeu jël na décision du bëreek moom parce que bon ni mu waxee xam nga daal wax ji bëri na fi mu nekk nii fu ne wax jàng fay jógee loolu noo ko jàngatee man loolu waxoon naa ji sax wax dëgg yàlla mm-hmm. te teguma ko fenn nag fudul mm-hmm. su fekkee ne yow da nga nekk responsable ci sa dëkk hmm. biir Pikine hmm. responsabilité yam fa gàddu hmm. mun na ma permettre ma xool ne lii lii ko gën terewuma pa ma seen pour mu bëre ak franc ak franc mais dama xalaat ni du caaganu ay reewande wala dara mais mun loo di liggéey ci sa carrière ba toll fi nga toll am sa école. war a former yeneen Eumeu Sène dem di bëreeg seen i adversaire hmm, yow loolu yow gis-gis bu nga ci am. waaw gis-gis boobu laa ci am. kon da ngaa jàpp ne bu ko jëlee daa jël ay adversaire ay rakkam. mais Doudou Sané adversaire u Franc la ci fii yoon bi mu ne. Doudou Sané. waaw. père yow da ngaa ni est-ce que waxu waxi far wala. waxu moo ko far de. fa la Franc jaar. man fàttewuma Franc fi mu jaar. yow Doudou Sané tax ngay wax wala booy ñaar sa mbër tax ngay wax. déedéet sama mbër lan la ci yoon lu ci yoonam. moom kenn dëkku ko ah, kuy dëkk Eumeu Sène. kuy dëkk mais dëkkul dëkkul dëkkul Boy Niang. waaw moom moom Eumeu Sène la dëkk. waaw. Hmm. kon kooku man loolu taxul may wax. ok mais yow. pour Eumeu Sène dafa toll foo xam ne ci làmb. Hmm. li ko fi wàcc mooy hygiène de vie bi nga xam ne yàlla may na ko ba pare moom mu nangu ko sàmmal boppam. mais sinon. ñi mu doon bëree ndool mm. presque kenn bëreetul. Mm. wala ñi ciy bëri it ñu ngi wax naan perte nañoo. Mm. amatuñu dooleeg nangam sangam. mais moom kenn du ko wax. bërki Demba Ndiaye diggante ak Tapha Tine leeral na ko. contre Sa Thiès wane na ko. kon du caageenu. munu faa bëri ji wala munuta munul daan Franc. mais Franc dafa am programme am boo ko waxee mu ne nii ñoo sama carrière nii laa ko bëgg a doxale est kon. kenn war moom tamit warul xalaat ni man tamit sama carrière nii laa ko war a doxale man nag boo ma wooyee ci ni ma man loo may xalaatal dama lay wax li nga xam ni moom moo mooy li positif ama seen xam nga fu mu toll actuellement hmm. ci pour jeexal ay carrière hmm. def ay investissement defaraat tay si nga ba ay ama seen judd fa am ay salle d'entraînement am foo xamee dañuy wax ni lii tay nga moo ko moom mais bu doon pour liggéeyu boppam kese. Hmm. li mu liggéey bu ko neexee mu toog biir këram. Hmm. di liggéey di lekk di di xaar. mais yow boo waxee lii boo nee boo boo boo ko waxee nii ci mbirum franc. waaw te Eumeu mi nga xam ne mooy mbër mi moom mu jàpp ne. bu tuddee Serigne Ndiaye cité ko ci xale bu mu. pare pour bëre ak moom may ko sens. waaw bokk na ci. waaw Aline numéro 2. waaw Coens. waaw guy gi. waaw waa léegi ñooñu. bu leen ko nangulee. waaw ah, maanaam te euh, est-ce que ñooñu kon euh, euh, maanaam. yow dañoo gën Franc palmarès waxoo ko Eumeu Sène man ngay waxal. waaw yow laay waxal moo tax ma laaj la wax. mu ma la waxal leneen xam limal nii ay adversaire yu dul saane la ñu doon moo ko lim moom moo limal boppam. waaw. ni ñooñu mën na leen a jox chance. mais yow ban gis nga ci am kon. gis-gis bi ma ci am déggoo. li ma la nangul ñee. gis gis bi ma ci am. man man laa wax. waaw ci digganteem ak Franc. li ma ci gis. waaw mooy bañ a bëreeg Franc pour may dut saane. xam nga ñi ñuy wax ni yëpp pour moom la mais duut saane ci boppam hmm. li tax mu war a mën a bëreeg franc hmm. su bëreeg Eumeu Sène du mën a du mën a bëreeg franc mën naa bëreeg Eumeu franc Eumeu mën na ñëw bëreeg duut saane bëreeg franc bi duut saane xale buy ñëw la di mais mën na nekk comme mën naa bañ a nekk ah lu koy traité bu keroog dañuy fekk fekkante nañ ci làmb admettons tey jii hmm. franc daan daan Eumeu Sène père père mais loolu làmb la rek waaw ah, mais yow làmb rek mais dafa am dafa am programme yow da wax nit ni la man nii laa bëgg a doxale sama làmb déggoo caatu yof di ko wax waaw euh, caatu yaraax waaw franc yàggoo dégg mu wax ni moom ñii ñoo bokk ci programme am ñii bokkuñu ci waaw léegi lu tax moom Eumeu Sène moom waru koo am Doudou Sané waru ko am ngay da toog ak benn group ñu ne ñun nii lañuy ñuy doxale suñu yëf léegi loolu dañ koy nangul ñii tere ko ñee man dama wax sama bopp laay waxal de ndax hmm. Eumeu Sène moo ma su demee di jël combat am du ma tàggu dañ ma laaj may wax sama xalaat moom bu toogee ba ne mën naa jox chance diw mën naa jox chance diw man dama ne Eumeu Sène actuellement problème il est en fin de carrière li mu war a def mooy fexe ba def ay investissement defaraat taay si nga parce que tey ku mel ne Tyson nga bëri ci làmb ba am li nga am yëpp ci ay teraanga sa école dem ba fay. Hmm. ah bul ni ma oh. bul faale kon ñoom Valdo. waaw ñoom Gambien. Hmm. Gambien nga Mbuur. Valdo dem na xam sa cosaan. kan moo nekk di. bul faale bul kon ñii dañ leen di conseiller pour que ñu daal di defaraat seen yëf. yow da bañ ëmb seen loolu daal comme moo sos si nga. waaw bëgguma loolu dama bëgg kay.